mbokki jullit yi yi ci réew mi ak bitim réew rawatina mbokki talibe yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaaret di leen ñaanal jàmm di ñaanal xalifa général kullu murid si ahmadul muntaqa yàlla na suñu borom dëgëral ko kàttanal ko ak mboolem ñi nga xam ne tànn na leen teg leen ci wetam ngir ñu jàppale ko ci liggéeyam maam ju tedd ji yàlla na ci am lu kawe te lépp nànd ko moom di siyaar bu baax mboolem kilifa diini ak kilifa aada yi ci réew mi ak bitim réew yëpp di beral ak siyaar akuk cant akuk ñaan sunu yaakaar gi nga xam ne moo fi wuutu sëriñ Touba sëriñ Saalihu Mbakke mi kenn dul fàtte mooy sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke ñu ngi koy ziyaare bu baax te di ko ñaanal jàmm moo koy rakkam bàyyi wun kenn jataay bii bu ñu ko gisee rek xel yëpp dana delluwaat ci sunu yaakaar ja sëriñ tubaa sëriñ Saalih Mbakke mi nga xam ne defal na kenn ku ne ci nun loo xam ne mënoo koo fay waaye day mel ni bor boo xam ne ba la koy lebal tumurange ko lool waaye loo koy joxit dag naan ko ca loola maa ko dugal ca bor waaye nekkul luñ mën a fay jataay bi nag di jataay boo xam ne jataay bu riis la ndax mbooleem jabatuk sëriñ bi bu ñu ko xoolee dana leen am fu mu leen delloo kenn ku nekk mën a doon ku mar sa jaar ci keppaaruk sëriñ Saalix looloo tax am nañ ci ak cant lool ndax ñi ngi fii ci barab bu tedd bu ñuy wax jannatu naim ci kër Serigne Moustapha jóob di kenn ci njaboot gi di kenn ci taalibe yi ñi teew fi nag ak ñii ñu feggool ñuy sunuy jëwriñ laata dara ñu jéggulu ci toogaay bi nga xam ne toog nañ ko ak ñoom waaye xëy na jataay bi rek moo ko laaj waaye ñu ngi koy jéggulu ndax ñu ngi feggoog sunu ndeyjoor ki nga xam ne mooy Serigne Adibou Diop imam moom Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana ñëpp xam ko ci keppaaruk sëriñ Saalih muy imaam jannatu maxawaa di ñaan suñu borom dëgëral ko kattanal ko àggale ay yéeneem waaye ñu feggoog ci loxo sëriñ Serigne Souhaïbou Cissé ñi gën koo xam ci abol baraka lañ koy wax wala boog ñi mel ni man muy koo xam ne saa buñ gisee xar kanamam xel yëpp dana dem ci ñaar muy waajuram wa sëriñ Mor may siise nekk jàmbaar ju ñëpp xam wala ñu ëpp xam ko waaye xel yëpp demaat ci sëriñ Tuubaa sëriñ Saalihu Mbakke yàlla na ko yàlla dolli wér dolli ko kattan li ko toofeex àggale ay yéeneem ñu feggoog itam ci ñi nga xam ne danañ jël kàddu muy sëriñ Cheikh Diouf mi nga xam ne moom itam buñ ko tuddee xel demaat njaareem kër Baye Souley Guèye sëriñ Souley Guèye daaray Kaamil waaye xel del siwaat ci sëriñ Tuubaa sëriñ Saalihu Mbakke mi nga xam ne moo ko fa dëloon muy imaam tey ci biir tuubaa gi di jàmbar lool di borom xam-xam ñooñu lañu ñu warite ne seqal jataay bi muy jataay bu am solo boo xam ne te danañ ci waxtaan waxtaan waris bu mat a bàyyi xel bokk na ci ñi nga xam ne ñooy suñuy kilifa te wax ko léegi bokk na ci sëriñ Koso Mbàkke moom sëriñ Koso Astulo Daarul Moxti di ñaan suñu borom dëgëral ko kattanal ko dolli ko wér ndax ñii ñëpp kun ci gis rek xel dana am la yóbbu waaye bokk na ci sëriñ Balla Jaxate mi nga xam ne dama koy faral di wax man fu ma la gisee du ma jàqati ndax lan ku jege sëriñ bi la ci fànn yëpp waaye itam mu doon ku woyof safaanub aba wastakbara wa kaana minal kafirin kon ñu ngi koy ñaanal jataay bi yàgg na ko teewe yàlla na yàlla def mu yàgg ko teewe bokk nag ci sunuy conseil euh, mu den ak sëriñ Moustapha Diouf moom it buñ ko tuddee xel yëpp dem ci ahlu lambay gépp moom it ñu ngi koy ziare di ko ñaanal jàmm mu bëgg lu baax lool yàlla ko yàlla defal jàmm bokk na ci sëriñ Magay Jaxate Lantinoor moom it mi ngi fi toog sëriñ Abdoulaat Ndiaye moom it mi ngi nii toog bokk na ci sëriñ Xaadim moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Saalix dina yegg si léegi incha allahu taala di bàyyi xel sëriñ Mous eh, sëriñ mbakki Diop moom itam mi ngi nii toog ñu koy ziare te di ko ñaanal jàmm bokk na ci itam sëriñ Mam Mbay Siise loo moom it mi ngi nii toog waaye di beral ak cant tànn wu tànn ñàkk sikk ndax Moustapha la tudd sant Seck kon moom itam ñu ngi koy nuyu te di ko siyaare di ko jaajëfal ci loo xamante ni sëriñ Moustapha ci boppam moo yeggale loolu ngir ñi sant ko gërëm ko ci taxawaay bi kon ñu ngi koy santaat di gërëm baax mbokk yi ngir njëkkanteeg waxtu bi rek euh, ni ma ko waxee léegi sëriñ Abibou Diop saa bu duggee ci sëriñ bi du ñu bëgg sax mu daaneel waaye tey moo fi sunu imaam ñun ñëpp kon dañu koy daal di jox kàddu gi nuyonteeg moom. bu nuyoo nag mu ànd ak indil ñu fàttali ñu tuuti ci jëmmi ku tedd kooku Serigne Saliou ngir ñu gën a mën koo teewlu bu baax attentivement. di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp di Serigne Afia lim leen léegi ñu bañ leen limaat ndax uh, njëkkanteeg waxtu wi waaye noo ngi uh, nuyu di ziare ki nga xam ni mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba di ko ñaanal suñu borom. Eh, yokk aw fanam mm, dolli ko ak wér may ko ndam ci liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba te te te te boole na ci ñu koy liggéeyal di di di siyaara di ñaanal suñu jëwriñ Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Saliou di ko ñaanal suñu borom borom may ko wér te bàyyi ko fi lu yàgg yàgg yàgg ba ndam li mu bëgg ci liggéey Serigne mu def ko ni mu ko bëggee di nuyu nag ay seen i bokk yëpp yëpp Serigne Touba yi fi nekk yëpp ak mboolem mi tew noo ngi siyaare ñëpp di nuyu ñëpp. Euh, mm, ginnaaw loolu euh, jataay bi nag ni ko sëriñ Afia waxee euh, jëmmi sëriñ Saliou ku ko mooy li nga xam ne moo indi jataay bi jataay bi lépp loolu rek la fàttali ko sëriñ Saliou ak fàttalee ko fàttali ak fàttalee moom nag kenn fàttewu ko sax waaye lu yeyoon na jataay bi bis bu set bis set war na am ko organiser jataay bu mel nii ndax moom moom ci boppam projet la boo xam ne daa daa daa am njariñ ci jamono ndax ay ay ay ay ay ay ay ay yéeneem ak i bëgg-bëggam ak réalisation am yooyu mooy yi nga xam ne mooy doxal jamono te yooyu waxtu wu nekk dañ ko war di wax nit ñi ñu di ko xam kon euh, sëriñ Saïb mi ak sëriñ Moustapha Diop ñi nga xam ne ñoo organisé bis bi ñoo ngi leen ci sant bu baax te leen ci soññi te buñ ko bàyyi at mu jot buñ ko mënee yokk sax mu baax na waaye buñ ko mënee at mu jot nañ ko def ndax loo am solo la ndax jëmm ngoog joo xam ne waxtu wu ne dañ ko war di wax nit ñi bindkat bu ne da cee war a bind ndax ko ko ku ku ku ay xalaatam jéem a jëlee naa baatin ba jëlee naa Sëñ Tuubaa ma ko juuf jëlee naa yooyu yëpp waaye ay xalaatam dafa doon loo xam ne mooy doxal jamono ba sa Sëriñ Suhaybu googu wet dana ci ñëw dana ci ñëw lu bari. Mm, bu ko defee kon euh, ñu ngi Sëriñ sunu rakk Sëriñ Cheikh Diouf muy koo xam ne Sëriñ bee ko yar incha allahu taala waxtaanu li ci bari moo koy moo koy doxal. bu ko defee nag jëmm jooju ngir ñu waxtaan ci moom aa euh, aajeetul di xam le mooy kan ndax moom li ñuy wax ganiyun ani taarif ñëpp a ko xam ñëpp xam nañ ko gone yi tuuti man dem naa Argentine euh, da toog fa gone goo xam ni ba muy waxtaan ci sëñ bi dama dama koy déglu te te sëñ bee ko yar te gone yi mujj ci sëñ bi la waaye wax na ma fa loo xam jariñ na ma fa loo xam ne xaw ma ko woon sax ci sëñ bi te muy gone gu du ko wax ni mën naa ko jur waaye xamal ni sëñ bi xam gi moom ñëpp def nañ ko li am solo kay kon léegi mooy xam li mu bëggoon ak ni mu ci doon tege nit ñi ñu won yoon yoowu woo yoon woo won yoon woowu nit ñi ndax woow moo mën a defar réew mi woow moo mën a defar nit ki addunaam ak alaxiraam ne ci kum taxool ba ba ba bàyyi la ki mu taxool ba bàyyi ko ba yeewi ko kooku exemple lay doon ci diine exemple lay doon ci àdduna ñaari fan ñaari fan yi yëpp da ko goo ci dugg ak moom da da da koy xam noonu nag lay def nit moom day defar nit di yar ko xamal ko boroom xamal ko àdduna ndax adduna it diisu ko sàggane diisu ko wacc waaw diis na ko nag baña a faale waaye di ndax moom ci boppam kuy xam àdduna moo la ko gën a xam saa su ko yàlla xiiree ci waxtaan ci ci ci plan àdduna bi géographique ak i nangam ak nangam ak ak ak biddiw yeeg weer yeeg bu ko ci yàlla xiiree da ngay defee ne kii du nit ndax lim ci xam yaatu na yaatu goo xam ni te lépp nag noonu la ko xamee lépp lu mu xam lu noonu la ko xamee ba noppi nag teg ko fee nag. ku ko gis eh, alaaji may sa rahmatullahi alayhi ko yeew géwër bu yeewu woon la yeewu te xam jamono te jànk dama daan dara la ko xorom woon la dama daan ah jàppee dana dana la bett boo ko gisee defee na nga dara ci àdduna te ñi xam àdduna di leen ko doon jàngal bokkam yii mm, kenn ku nekk am na kilifa goo xam ne dafa wax doomam ne ko kilifa gu mag la ci ñu doomam da da da génn ñëw mu ni ko foo demoon mu ni ko damaa ji woon mu ni ko seen waa jooju da leen ko kooku day boobu Abdou Diouf fi ne kooku si yor ko dàq yor moo ko moo ko mooy li lépp lu mu doon lu moo ko dàq kumu ah, ba noppi nag ne cal ne dégg noonu nag bu jàppee nit noonu la koy def dana koy yee dana koy yar dana ko defar dana ko xamal diineem dana ko xamal addunaam ba wàllu diine du ca gàkk du ca du ca laaj yi àdduna it kenn du ko ci nax noonu noonu lay defaree nit loolu nag projet yooyu nag xamal ko nit ñi mooy li xam ne Serigne Saliou ci jamono ji ñu toll loolu lañ soxla waaye doo xam jëmm ji doo xam ne jëmm ji bu ñu xasee ni Serigne Saliou ñëpp ko xam ñi jullit ak ñi dul jullit te ñi murit ak ñi dul murit gone ak mag góor ak jigéen gone yi ak jigéen ñi day mel ne sax ñoo gën a xam Serigne Saliou ci jamono ji ñu toll ndax bëgg giñ ko bëgg mu jaral leen di ko gëstu di ko gëstu ba tax na ñëpp ko xam waaye nag bu ñu ko xamee ba noppi nag nañ xam nag lan la bëggoon loolu am solo loolu mooy li nga xam ni moom lañ bëgg a waxtaane li nga xam ne moom la doon defee ndax dafa amoon liggéey boppam boo xam ne tax na mu sàggane lépp lu dul liggéey boobu ndax bi ma yóbbu got maa ngi koy wax léegi bi may yóbbu got mm, bi ne ba egg bi ma wooyee ba bañ toog bi dañu ma fii li ma la indee laa bëgg nga xam ko daal di li ma la fi indee mooy sama liggéey mooy jàng jàngale ak yar loolu dong lañ ma def loo woon adduna nag moo ma dab ñett ma ba mënatuma ko ma bëgg nga féete ma ci daal di may ne lu ci dolli ko rek damaa dab waaye lii rek lañ ma liggéeyloo woon mooy jàng ak jàngale ak léegi loolu nag réalisé na ci réalisé na ci loo xam ni loolu moo ma tawoon nit ñi loolu mooy li nga xam ne moo indi jataay bii tey ñu xam le kan mooy Serigne Saliou lan la bëggoon nan la doon defaree nan la bëgg nit ñi mel nii buñ ni melee incha allahu taala réew mi dana jag te ku mel ku ne sa àdduna dana jag sa àllaxira dana jag te defaram moom rek moo mën defar réew mi ndax am réew euh, xam-xam yoru ko ak juba ko yor am lu nu xam yi bari bari bari te njub gi amut réew ma da lu xam-xam yi Sénégal kenn ëpp ko ay jàngkat waaye rek lu ci des rek ci njub yi la dese njub googu nag lay def ci nit ba nitam foo ko fekk loo ko dénk mën na koo saytu ba mu mel na nga bëgg te te te te dara dara du la ca naqari te wàllu diinam dara du ci yàqu ndax moom da daan wax ni ab taalibe daa war a man daa war a man lu ne na daana wax ni biir kër Sëñ Tuubaa gi tol nay jamono lu ñu soxla duñu wuti ku koy def lu ñu soxla rek mi ngi ci dongo yi lu sëñ bi soxla mi ngi ci dongo yi jaafira daal di ma wax ne diw moo daan defal jaafira yi te bu ma saan defar jaafiraam buñ ko gaaralee ñëpp dañ koy seetaan te ci donc yi soxna yi la ñi mu yar la bokk diw moo daan moo moo daan moo daan menuisier nga xam ni bu defaree ba bàyyi te lépp ci biir kër gi lañ koy def lu mu doon lu ne dina mu ne ma këruk murit nag noonu la war a mel nga xam ne noonu la doon formé moom ba fi ne nii daaraam biir daaraam loo soxla ci xeetu métier ak xeetu ni ku génn ci daaraam mën na ko te ñi ci gën a bari ci biir daara ji lañ ko mënee ñu bari ci biir daara ji lañ damaa damaa ma am ngóor su ma yoroon got mm, mm, mm, sa bi bi ak Tabaski agsi mu daa di léebu machine dem engagé ñëwi réew ñëwi dëkk ba man ko waaw yow lii ngay def lu mu doon mu ne damay damay ñëw dëkk man ko foo jàngee ñëw mu ree daa dëkk ba mu ne leen kuy andi sam ñaw na nga andi na nga andi modèle ba nga bëgg mu mel ni nga xam ne bu ñëwee da koy teg mel ne ku sotti mbind te bu noppee mooy dàq booba ñoom waa dëkk bi yëpp dañoo maase ci ne moom moo dàq ñëw ko te jàngee wu ko fenn boobu mi ngi ci boobu mi ngi ci daara ji loolu noonu la sëriñ bii def nit lépp xeeti métier yëpp yëpp ya amoon ci biir daara ji te ñëpp ci biir ko te loolu lépp ci barkeem ak barkeem sëriñ Tuubaa ba nga xam ne moom la doon roy bay wax ni kër wu murit lépp lu ñuy def dafaa war a am noonu la doon defar nit kon bu ñu jàpp ni sëriñ Saliou doon defar nit rek ngir ngir ngir ngir diine déedéet da koy defar ngir diine ak dunya diine wa dunya kenn du leen tàggale wala tansa nasibaka min ad dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk wala tabghi al fasada fi l ardi ku mu defar ku ne noonu lay mel ba tax na loolu nag nit ñi xam ni kooku mooy kooku noonu la meloon noonu la def ci nit loolu mooy andi moo andi jotaay bii tey kon xam naa foofu la eh, taxaw sëñ affaire dañ doon ubbi rek bu ko defee boo joxee sëñ Juuf sa sëñ Seex Juuf nag loolu dana feeñ boo joxee sëriñ Suhaybu loolu dana gën a feeñ wasalaamaaleykum wa rahmatullah allah barakallah bismillah bismillah jërëjëf sëriñ Abibu Jóob moom sëriñ Mahamadou Lim Jóob Dagana ni ma ko waxee léegi defar na jataay ba noppi ci li nga xam ne ubbi na ko doy na sëkk ku bëgg a xam kan mooy Serigne Touba Serigne Salih toolub sunna ak jàmbaar ji ah, jàmbaar jàmbaar ji ànd ko fit ak xol bu rëy te rafet moo mën a dékku sa bis yeeg bis yi ñëw ci kanam toolub sunna ak farata ak mando bi moo ko fi bay yenam ba diis na te sooxul kenn du làqu la fam sariwaat àq xaaj maj soob ga lenn desul siggal ne diine ji siggal yoon wi yaa am i ndam mboolem garab yi ñu gis góor yàlla daa ko na moo ràngoon na yëpp di way yow yaa jub ak sa borom la yàlla soxla ci nit moom lay defar ba mu jag ba mu weesu yàqu mu fab delloo ko muy ko ñu xam saaliw mu defar guru rek mooy la ko saf ndax nit lu dul ruuga muurum suufa foofa la jëm defar na junni bi junni ruu defar bu rafet sellal ko bañ seexlu luy bon bon yi ak lu tilim sëriñ seex yaakaar naa nii la sëriñ bi ubbil mu doon waxtaan wu am solo da daal di jël kaddu indilaat ñu ab yaram pédagogie bi nga xam ne moom la doon jàngalee ci ab yaram ndax looloo jaaxal ñépp ni doon yare dafa mel ni mësta am ci àdduna sëriñ Cheikh. di ñaan suñu borom mu delloo ñoo fayal a Cheikh Saliou Mbacké ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam te di leen ndokkeel ci jotaay bu tedd bii di jiital ci nuyoo yi nag sëriñ Mountakha ñu su nekkal sëriñ bi. di jiital ci nuyoo bi itam sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ di suñu sëriñ nga xam ne la def lépp moom lañ koy defal moom mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ bi di nuyu itam suñu Habibu Diop mi ci suñu wet di sëriñ di suñu jëwriñ ak ñuy seqal jotaay bi yëpp suñu son bu buñ leen tuddee mu doy ñu teg nuyoo yooyu yëpp nag ci loxol sëñ Moustapha Diop mi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci këram muy taxawal jotaay bii ngir di ko delloo sëriñ bi njukkal ak xam ne li suñu abi bu jóg waxee ne sëriñ bi lenn lu nekk wane na ci aw yoon ndax moom jamono jamono la doon defar si mu jaddid la mu jaddid nag mooy koo xam ne fànn gu ne xàll na ci yoon wax na ku ca jaar da nga boole àdduna ju jag ak àllaaxira ju jag mm-hmm. loolu mooy mat gi bi ko yàlla def loon mu mel ni nag tasaare loolu ak di ko waxtaanee àggale ci àggale ci ñu ko xamutoon ak fàttali ñi ko xamoon loolu moo njëriñul jotaay bi. ne ko sëñ Abibu wat ubbee léegi sëriñ Saali moom ab liggéeyam moo doon jàng ak jàngale ak yar yar nag dañuy yar nit ki ci loolu mu jàng mu di ko dund di ko jëfe waaye yar nit ki ci nangoo liggéey ba am ngor mën a sàmm jub gi nga xam ne moom la suñu borom soxla ci moom moo indi liggéey bi. leen lu nekk danañ ci dikk sëriñ saaliw ab yaram yitte ji ko yitte ji ko tungoom moo moo yéeme te yitte waa tasawuf dañuy wax ne alhimmatu muntahal iraada maanaam nit ki limu bëgg bëgg faa àgg bëgg faa jëm bu fekkee am na yitte na lu mett métti dana xuus ba àgg ca kooku mën naa réussir lu ne ci kaw suuf moo tax sëriñ Saliou nga gis mu àttanoon nga xam ne li mu bëgg ci yar ak jàngale ak ak yar da ko jaraloon lu nekk yitte jitte ji ko laloon yitte jooju nag saa ko nit ki xasee am léegi jaar na ci yoon woo xam ne nii lenn lu ko mën a tey àgg jëm du am sëriñ bi yitteem da ko sosoo ndax ku xam na sëñ Tuubaa mi ko yàlla jaarale ci moom yitte jëm defoon ci tànnal ko waajur wu jigéen rek mhm. Mhm. loolu ci li ko jural yitte jooju bokk na ci mhm. moom itam yitte ji da koo gimmiwaale ndax sëriñ bi liñ gën a mën a xam ci nit mooy jàng ak defaru loolu bi mu dalagul jàng la feeñ ci moom ci fan yëpp ni mu feeñee ci moom mooy am na yitte yi sëriñ Touba ci njaareem bi mu doon tut tànk dalagul jàng sëriñ bi wax ne xasiida sàngam ku ko mokkal dig la nangam ak nangam mu def yitte doon tut tànk ba noppi mokkal ko mu xasida egg fii foofu la yitte woo kon xam-xam njëkk a feeñe ci moom goo xam ne da ko gimmiwaale waaye yitteem ci defaru ak liggéeyal sëñ Tuubaa wax nañ bi mu demagul daara nekk ci njaarim itam daana def bu ko nit joxee aw ñaar dërëm wala juróom day bàyyi ba sëñ bi ubbi mu dem jox ko ko ba benn bi sëñ bi laaj na loo ci jublu damaa gis nit ñi di ko def ma xam ne lu baax nga xam ne kon loolu da ko da koo gimmiwaale mu yitte jooju loolu nag du du du du ndax Sëñ Tuubaa daa wax ne fa ali himmataka fi umuuri dunya wa uxra taxsabil ujuri wala tualliqha bi cheyin fi zaman min an naqaisi bi sirrin waalan Sëñ Tuubaa nee na boo mbiri àdduna ak alaxira yëpp da ngay fexe ba am ci tëju kawe moo tax yonent tibina na woon alaxira da jaamu yàlla lañ fay jariñoo da ngay jaamu yàlla ba mel ni amoo ci soxla àdduna waaye adduna yitam danga nga ciy nekk bañ jàpp ne xanaa kii sax tëluta jaam yàlla moo tax ñaari tànk yooyu nag mooy li suñu ëbiwu doon wax nga xam ne sëriñ bi ak kamaliya muy ak mat moom la donne ci sëñ Tuubaa loolu it la siñ sëñ Tuubaa doon liggéeyloo ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla tegoon ci loxoom ndax sëñ Tuubaa daa wax ne mbiri adduna yëpp na nga ci def sa yitte ba lenn lu nekk na nga fa siyéne bokk ca ña ci gën a kawe mbiri àllaaxira tam muy cër yaag jaamu yàlla gaag njub gaag baax ga ak amal njariñ nit ñi loolu it na nga fexe ba bokk ci ñi si gën a kawe bu boobaa nag loolu muy jur bu ëllëgee nga am ndam yi nga xam ne moom la Sëñ tubaa soxla mbooloom di ko am ëllëg waaye Sëñ Tuubaa daana wattandiku lool lool ñàkk yitte ak ñàkk gis-gis bu suufe Sëñ Tuubaa noonu la meloon daf daan wax suñ boroom ne ko waxtar liyal ahsana fii kulli layaan hëbliya xayral qismi fil maqaasimi wala zawi diine bi jaahil qaasimi nga xam ne bu mu dóor a jóg daa wax ne suñu borom cër ya gën a rëy laay lay wut len luy nekk itam tànnal ma ca la gën a rafet kon sëriñ Saliou noonu la yitteem jooju loolu ko waraloon ñett yooyu nga xam ne moom suñu ébi bu wax rek ci laay baagante yar ak jàngale ak jàng sëriñ bi moom ku ne xam ne xam-xamam doonul lu ñuy yor lu ñu nattable te loolu it lu mat di fàttali ndax ndax njëriñ ndax jëriñoo guñ ko mën a jëriñoo ndax moom bi mu xamee ne sëriñ bi da leen a bëgg ci ñoom am njàng dajaa def yitteem ba muy alxuraan ji ko woon mu àgg ca fam ca war a àgg ci diir bu gàtt defoon ci yitte jëm ci war a def yëpp la ca topp muy xam loolu it mu def ca lam ca war a def lépp ba def ci sax anam gu yéeme ndax sëriñ Saliou am njàngum xam-xamam mi ngi tàmbalee fii ci Touba mos na ma ab topp ci Tindodi njaareem bokk na ca mbaakol nga xam ne daana xëy war aw fasam ci mbaakol di jàngi romb ci dëkk yu bari dëkk bu ne mu borom mu xam nekk fa mu jaar mu jàdd fa wut fa xam-xam ka koy jàngal itam jamono yooyu alal ba di nekk dana fexe ba jox la juróomi dërëm nga xam ne kon fàgg gi doon doon fàggoo barke ak yitte ji amoon ci li doon def ni ko ñore ginnaaw loolu it xeeti xam-xamu suuf yëpp xam na ko xeeti waxtu yi xeeti yëpp xam lu na ko nam ko war a xamloo loolu la waraloon mu di ko laytaay mooy daa aju woon ci ab liggéeyam ndax ku ne xam na ne yar daa laaj am suuf su yaatu su soo xam ne day sori li aju ci jaxasoo ak yu ni demee ak yi nga xam ne mooy indi ndax naxi àdduna loolu nag moo tax mu doon faggu loolu ba jamono yooyu ñu bari daan nañ ko wax ne ko sa nii nga sonne ci yër ay téere gëstu bi daal mu ne àdduna daa gudd ab tànk man ngaa dem ba jëmmi jamono lu ne mu dele ko laaj damaa bëgg a waaj waajtaay woo xam ne nag lu adduna gudd gudd lu ma fi yàgg-yàgg laaj bu ma indi noonu fekk ma mën koo topp noonu la doon fàggoo xam-xam loolu it lu mat a bàyyi xel la waaye kon moom am njàngam ci xeetu xam-xam yëpp waxuma la xam-xamu diine waaye xam-xamu adduna rek ni ñu waxee ne boole diine ak adduna sëñ Saaliw xam-xamu adduna bii ñuy jàng ci ay suuf yeeg wàllu plan yu demee noonu maanaam ñi ci am ay diplôme yi gën a kawe daanañ ñëw di ci waxtaan ak moom mu ci yéen ba dañ koy wax ne ko sax xanaa foo ko jànge wala wala wala wala ba kon ne dégg na digganteem ak Cheikh Anta Diop mi nga xam ne ba léegi ñi gën a rëy xam-xam moom la ñuy yéem kon a xam na ne digganteem ak Serigne Saliou lii leen jaxase woon lépp waxtaan ci xeeti xam-xam yu xóot yooyu nga xam ne lu tumuranke woon ci réew mi la rawatina ak ci Afrique kon loolu ku ne xam na ne xam-xamam ni mu daje adduna ba noppi daj diine léegi xam-xam boobu nag def gi ko war a def ci ñi ko yàlla booleel ndax nee na dañ sëñ Tuubaa lim lim ko digal mooy mu jàngale ak di yare njàngale moomu bi nga xamee ne xam-xam bi noppi na ci ci la daal tàmbalee samp ay barab ngir di jàngale njàngale moom it moo ko daan def ci loxol boppam ca njëlbéen ga di ko def ci loxol boppam xam nañ mag ñu bari ñoo xam ne ñu jiitu woon ci daara ji sëñ bi mool jàngal na leen ba ci àll wuy sax da daan dañ daan dem tool ñëw fekk mu bindu bindal ko boppam waxuma la alquran ja xam-xam waaye njàngum xasida mi sax da ko daan def ci loxol boppam bari na ci man ñi nga xam ne yor nañ bind yoo xam ne sëriñ bi ko bind doon ngir di leen ci jàngal xasida toole itam buñ demee muy dagg ay sas nga xam ne lu ci nekk rek daa wut toog rek bàyyi ci nit ña waaye da daan wax na yoon wi du yoonu dem leen waaye ñëw leen ñu dem la kon loolu yi bokk na ci li ko may xarañte ci ab yaram ndax nit ñi saa boo leen waxee ñëw leen ñu dem ànd kook ñoom nekk ci seen kanam loolu dana dana leen dimbale te dama na ñedd seen yitte ba mën a àgg fi nga bëgg ñu àgg fa kon bu dee jàng nag ak yar lépp am yàlla rek lay jëriñ ak xol bu leer ndax suñ borom daa wax ne yowmal xiyaam lenn rek fa am njëriñ mooy indi fa xol bu xol bu mucc xol boo xam ne set na wecc leer na nañ ngërëmul yàlla mën caa dugg te ngërëmul yàlla yooyu mooy tax a am àjjana mooy tax a maye dara ay darajaat ca àjjana ak nañu rawantee léegi kon njàng moomu nga xam ne ak leer la war a def faw ñu wut wutal ko ay jumtukaay ndax defaru xol daa am jumtukaay yu ñu koy defee jàngale ci la bokk alxuraan daa doon leer goo xam ne day leeral xol képp ku yar li tax nga di ko jëfandikoo mooy ngir ñi nga yar ngir seen xol leer ñu xam li ñu war a xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa wax ne alquranu huwa nuurul mubin wa siraatul mustaqim alquran mooy leer gi nga xam ne mooy leerale alquran wax na ko ca biir xad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi llahu man ittabaa ridwanahu subala salaam alquran mooy génn nit ki ci ak lëndëm yóbbu ko ci ak leer moo tax sëriñ saaliw am njàngam alquran moo ci jiitu woon ngir ki muy bëgg defar leer gi soxla ci moom am na ci loo xam ne ci alquran lay bàyyi ko dugg ci ab xolam bu nappee ci alquran ji mu teg ca njàngam xam-xam xam-xam itam ku ne xam na leer la bi nee na al ilmu laa bi kasrati riwaya bal innahu nuurun maa diraya xam-xam du jaage ne mooy xam li ci téere yi nii mën koo nettali waaye xam-xam la tax ñu naan xam-xam leer lay doon goo xam day dugg ci sa xol di ko defar di ko setal ba ëllëg yomal xiyam nga mën a indaale la nga xam ne moom dong moo fa am njëriñ kon loolu taxoon na xasida yi itam bokkoon ci lu mu fonk lool ci di ko jàng ka mokkalee ko yëkkati te loolu it ak leer la goo xam ne leer leer gi ci nekk moo tax ñu di ko jëfandikoo ndax Sëñ Tuubaa nee na wajaal tawaalifiya anwaaran tanuur saatiatan bi xormatin nuurin mubin sama taalif yi yow suñu borom na ko def muy ay leer yoo xam ne day jolli di leeral ay xol wajaal fu fuyuda kalkali muniira xuluuba xisbika wa astia nuura kon ba tey loolu taxoon na léegi nga ñëw ci liggéey bi xam nga liggéey la nga liggéey ci tuur saw ñaq bu fekkee yàlla dong nga tax a jug wala ci lu jëm ci yàlla la jëm loolu dara gënu ko mën a leeral xol dara mënu ko gën a gaaw a defar nit ndax suñ tubaa ku ne xam na ne liggéey gi na la liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ca ne xidmatuhu anil uyuba azhabat wal istiqamatan wa safwan wa habat liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na day defar nit ba dindi ci moom ay ayib may ko ak sell may ko ak sax ci am njub kon looloo taxoon sëriñ bi bi itam mu defoon ko noonu liggéey bi mu dugal ci xereñ gi nga xam ne bokk na ci li ko may ndam bi muy liñ daan liggéey fim mu ko daan dugal nga xam ne li tàmbale ci bi mu nekkee mbaakol di fa sàkku xam-xam ay 1931 du ko sori booba nga xam ne xam-xam bi sax àggugul ci la fa doglu ay tool ca ndukkumaan jeng bay fa fukki kilo gerte ak ñett mbay ma barkeel lool waaye jëriñoowu ca dara waaye loola jëriñoowu ca dara lépp daf ko jël jox ko Cheikh Moudou Moustapha mi nga xam ne moo fi nekkoon mu def ko ci yëpp bi nga xam ne moom la fi Sëriñ Tuubaa bàyyi kon loolu tax na ba liggéey boobu def ci tool yi nga xam ne ci la fàggule yi ñu doon nit ñu am jom doom nit ñu nit ñu nit ñoo xam ne it ñu mën a déggoo lañu ndax liggéey bi da ko laajoon xam nga boo gisee suñu ëpp bi wax na léegi lu yéeme da ngay gis dong bu newoon ci tool ya génn fa man lu nekk xam nga loolu li ko waral mooy man lu nekk moom ci xel la aju liggéey bi nag day tàggat am xel day defar am xel ba daanaka loo gis man koo man koo toppandoo ba man ko comme ni nga nettalee ko kooku nga xam ne day gis ñaw yi ñu wan ko plan bi rek mu koy toppandoo rek ba man ko fi ne loolu xel mu ñaw mi ak xol bu set bi nga xam ne mu nekk ci yow moo koy moo koy waral man mii ma sama maa ànd ak sama benn bokkum donga ñu dem ci koo xam ne métier mañ ko fekk muy liggéey da ca am lu ko ca jaaxal lool te ko ticc kooko daa jël rek daal ko koy defaral ci diggante bu gàtt gàtt gàtt gàtt ndax léegi xeeti mbay mi nga xam ne moom la doon def ci tool yi dafa ma doon lu barkeel a barkeel loo xam ne day ubbi am xel ndax bay daanaka xeeti métier yëpp dugg na ci biiram am na kilifa adduna gu ma sa wax sëñ Saliou na ko dañoo waroon def ay formation ci daara yi buñ génn ñu mën a am métier sëñ bi ne ko daara yi de jàng lañ fay def ak liggéey jàng nag ku ko def da nga xam bu dee alxuraan la sax moom ku ko mokkal da nga weesu ak torox daan na ko bu dee liggéey itam yéen ñi seen xam-xam màcc ci àdduna yéen a wax ne mbay moo gën a gaaw ci suqali am réew ak àdduna te liggéey boobu lañ fay def kon day mel ni dañoo xool li gën a mën a li gën a tënk liggéey yëpp muy mbay sëñ Tuubaa joxañ leen ko ñoom mag ñu ñu nekkoon ci fi ne nii jamono yi ngay bay damay wax ne liggéey moom munta paase liggéey boo xam ne da nga koy toog lañ koy defe ak boo xam ne da taxaw wala boo xam ne da sëgg te ñett yëpp mbay tënk na ko mbay am na jamono yoo xam ne da ngay kooku sa yaram dana sawar ci wàllu dox ba leneen loo gis nit du ko def tam aju ci loola boo ko xoolee ñaari fan man man man ko liggéey liggéeyu mbay am na foo xam da ngay da ngay xam da ngay da ngay sëgg kooku da nga tàggatu ci sëgg ba lépp lu ñuy def te sëgg man ko boo ko gisee da ko mën a def am na foo xam ne nii day toll ci dangay taxaw yéen ñi yéen kon xam nga xam nga jamono yu ndéqi ba ma saan dikk ci daara ji da ngay yaakaar ne fii ak tëgg la mm. kéngi kéngi jéeg dàgg yi loolu ku ci jógee at wet googu loolu ay të jamono yi ñuy defar ngédd yi dugg àll bi gor gor da ngay jàpp jàpp na ñii moom ay ministre ay ministre yu taxaw lañ léeg nga yor am machine nekk ci àll bi di liggéey ba yàgg ak weñ na ci te gisoo kenn ku la ko ko jéemal da ngay jéem a xalaat di nàccal sa xel nàcc sa mujj ba dangay ngay mën a dépendre lépp loo xam ne yàqu na kon loolu mooy waral nga gis ku fa jóge yooyu yëpp daal di feeñ ci moom liggéey boobu itam waxuma la njariñul adduna bi rek jaroon na Serigne Saliou di ko def la ndax liggéey ku ko tàmm foo nekk da fa mën a nekk buñ ko boolee nag defar sab xol yar bi mooy tax ba doo xeeb benn liggéey doo xeeb ñenn métier lu ne da nga ko mën a def lu ne itam da ko mën a dund occasion ba ca gën a xéewale nag mooy mu doon jël liggéey boobu di ko def ci liggéey Sëñ Tuubaa bi gën a màgg ci liggéeyam bi te waxoon na ne taalibe yëpp ci la ñu rawantee te mooy liggéey yi sëñ bàyyi nga xam ne jumaa ja nekkoon ci bopp bi loolu moom beneen mbir la boo xam ne mbirum biir la kon xerañ googu nga xam ne moom la ci defoon nag ak yitte moo ko may résultat yooyu nga xam ne suñ affaire génn na génn na ko ci te it loola doonut lum yóbbaale ba léegi mi ngi ko fi bàyyi képp koo xam ne bëgg nga caa am cër ya nga war a am boo ko doxalee nam ko daan doxalee suñu borom moom du jeex du jeexal kon ñu taxawani foofu ba dellu si waat. jërëjëf euh, Serigne Cheikh ñu ngi santaat bu baax tey gërëmaat bu baax ci li nga doole ci bi Habibou lim indi muy loom solo lool ndax jàngee nañ ci Serigne bi ni daan bàyyee xel daa mel ni lu nekk xelam a nga ca woon. ci ndaw gi ni nga ko waxee ni nga ko junjee ci ndaw xel muy takk la ko suñu borom joxoon loolu feeñ na ci biir wax ji moo ne noonu la daan tàggate itam ci alxuraan comme ni nga ko waxee daawut xeeb kenn ca lam nekk mel na ni bu dikkee bu laajee sax xale bu ndaw bi jàll toll ci baax wala mu toll ci ijji mu nga xam ne saa bu dikkee de laaj nit ki fu mu toll ci alxuraan bu fekkee da ngaa toll ci isib bi boo demee ba yàgg bu dellusiwaatee laajaat fi nga toll dana xam njàng mi dox na wala doxut nga xam ne da ko daan jaral lu nekk xeebut sax kon ki nga xam ne da doon ijji bu ñëwee am na xale bu masa laaj da ko fa toll xale bi na ko man euh, sari xale bi nee na ko sari laa toll xeebut sari jooju ma ko wax te sari rek la ko wax waxu ko sax sori sëñ bi ne ko xanaa kon min nga jàng démb waaw ngir ngir wan ko ne ko jàpp naa li nga wax te bàyyi naa ko xel xanaa kon min nga jàng démb Eh, wax nañu fii ci njurul eh, ni nga wax ci wàllu xam-xam ni muy xoole nit ki tam ci alxuraan noonu lay xoole ci xam-xam foo toll ban téere nga wax na ko téere sangam mu laaj la ci fit la ca ni alfiya am ko tollu al mu ne ko alfiya laa toll mu ne ko ci ban bunt mu ne ko inna nee na mu ne ko fu inna di nekk anna waa ji mel ni ko xaw a gag mu tàmbali moom ci toog njëwaan gi di ci tari ba tari ci ñetti téeméeri bayit ci jataay booba loolu la muy tekki mooy kon junni bayit yi moom peeg na ko te it lu masaa jàng da ko mokkal sëñ mu dem moo ko wax dafa wax ne li ma gën a jaaxal sëriñ Saalix mooy lépp lu ma ko masaa jàngal moom da ko mokkal ba noppi mel ni dama ko gën a dégg sëñ mu dem moo ko wax euh, njaareem noonu ne boo ko toppee itam ci wàllu xasida noonu la ci mel ni mu ci tàggate dañuy togg kuréel di jàng ba yàgg mu jekki-jekki daal ne dafa mel ni wet gi féete na le wetug wetug saalum ga am na koo xam ne baatam daa mel nii bokku ci wala tolluwut nga xam ne fi muy toog dana xam penku la nekk wala soo wala nangam buñ ko saytoo noonu lay deme mu di la tàggatam ci xaside yi euh, ba ci euh, fee ci euh, xabaan am na bis boo xam ne dañuy jàngaloo midaad yi toog ci juróom benn koñ bi dafa wax ne keroog bu ma bu ma taalee lamp bi da nga xam ne da ngeen a juum ñu taxaw ci buntu koñ man alaaji loo ma nga ca woon ak daam daam daam daam jaxate sëñ Abdou Latif jaxate ñu toog di taxaw di jàng midaad yi waaye mënuñoo fexe ba agsi ci nawaytu bi mati man ataani nawaluhu ndax saa bu nu agsee ci rek rama rek mu daane ne tàyyi torse bi ñu daal di dellusiwaat ko mu dugg mu daane ba tey de li ma waxoon xamu leen ko de ba yàgg moom moo toog daajal boppam diggante midaadi ba nawaytu ñu koy déglu nga jàng na mi midaadi maallahu minan naari nawaytu bi mat daan ne dem leen xool ba xam sëñ sëñ booba sëñ Mbàkke Faaje ma nga fa euh, daal di ñëw daan ne dafa bëgg ngeen xàmmee sadd yeeg matt yeeg lépp ramma asma samma lépp dafa bëgg ngeen xam ko keroog sëñ Mbàkke Fajam lii la wax biñ tàmbalee jàng ñu dem ba ci nabastul fira lillahi jalla jalaaluhu gis ñu làmp tàkk ñu xam ne ñu daal tàmbalee maa nga xam ne li mu bëggoon kon am na ñu daal di wéyal ngir kon noonu doon toppee xaside yi lépp ba ci liggéey bi kal yi ngay li ngay bay ak lépp sooy bay boo defee nangam ba ci dund gi ñu dund da ko daan bàyyi xel li nga war a boole ngir soo bañee tawat ak yu mel noonu kon sëñ bi ni nga waxee daa mel ni bàyyiwutoon dara lépp da ko doon def ba tey ci jataay bi ñu ngi santaat dab nañu Serigne Bara Mbacke moom Serigne Souhaïbou ñu koy ziare bu baax euh, mi ngi agsi na léegi ak Serigne Abdoul Khoudous moom Serigne Abdoul Hat moom it ñu ngi koy sant bu baax ci teewaay bi Serigne Salihu Mbacke moom Serigne Mbacke Mohamed euh, di rakki Serigne Moustapha Mohamed Ndombooji Ahibaul Khadim li nusrati dinil xawim moom it ñu ngi koy sant ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxawu na ko suñ mbokkum dongo mi lool wax dëgg yàlla ci taxawaay bu rafet bi bokk na ci Serigne Abo Mbacke moom soxna Bintu moom it teew na fi. waaye itam sunu sang bi yegg si léegi nga xam ne buñ ko gisee rek xel demaat ci gédé damay wax ne gédé moom ku leen gedd gaañu euh, kon ñu ngi koy ziare ko dalal jàmm muy sëriñ Jili Buso ñaan suñu borom dellu ko feex bu baax a baax a baax sëriñ euh, Sohaybu dafa mel ni dégg nga jëwriñ yi fi ñu jaar yow nag yaakaar naa ne muraaja fu la neex jaar waaye damay fàttaliwaat tuuti rek ci sa waajur wu tedd wa dama wax léegi sëriñ Sohaybu Saalih mel ni ku gag waaye gaguma ndax Serigne Soxna bu saali wu siise ndax ñu ko seq la am na ñoo xam ne Serigne Serigne Saliou lañ ko xamee am ci ñoo xam ne xam nañ ne doomi Serigne moor Mbaye siise la waaye sa waajur ba daa doon koo xam ne boo toogee di wax du jaaxal kenn dafa am bi Serigne Saliou jaar fa diggante takkusaan ak timis yàlla dogal na keroog maa ngi woon ci oto ba mu dugg di nuyoog sëñ bi ñii bëgg nootu timis xam nga ca moom ca sañ-sañ ba ak fulla sëñ bi jékki-jékki ne ko sëñ bi da ngaa defee ne xawma la waaye man xam naa la de ndax yaay kooka sëñ moo rey wax de na ko yaay kooka ndax gis naa kooka doonum sondeel tàkk ba ba jeex tàkk te gisaatuma fu mu génne teg ci ne ko gis naa kooka génn këram génn ci barabam dugg sa kër te gisaatuma fu mu génne daan na ko nag fii nag boo fi boo fi jamajee ku lay gàgganti te ñu ngi waaj a noddu timis te ngaa dem sa kër booy juum juume fa wallahi al asim sëñ bi bi muy génn bay Matar Sylla mi ngi noddu bi muy toll ci daaneel la sëñ bi gaare keroog bay Cerno Fall bay Cerno Kan bi ñëwee ci mbaar mi lan lal si gaade gi sëñ bi bi mu jullee sëlm bi mu jullee timis ba sëlmal wala les mi dafa geesu na Cheikh Cerno dafa ëppam dafa sëñ Cerno ne ko Mbàkke lépp mat na nga xam ne mi ngi naas ba xam ndax dafa julli ñaar raka wala ñetti raka yi mat na keroog sëñ Cerno Kan lii la ko tontu kon xanaa wax ji waaw sëñ bi waxoon sëñ sëñ Mor Mbaye xanaa loolu delsi na moo tax ca way wa dañoo wax ne kii moo di kooka te kookaay kooka wax la ju wér ndax wet di dus du ca bokk foofu laa mën a yem sëriñ Souhaïbou kon ñu dikk ak yow ci ni ngay toogee ci sëriñ bi ak ni ngay waxtaan ak sëriñ bi ku la gis xel lépp demaat ci sëriñ Touba sëriñ Saliou Mbacké nga gën ñoo fàttali sëriñ bi rawatina ci ay objectif ay bëgg-bëggam daana génne di doxantu ay ngoon bu jaaree fii tey penku boo liggéey mu jaar càmmoñ boo liggéey mu jaar feneen fu ñu ko miinee mu teg foofa di jaay fekk na booba doxuntuutoon rek mi ngi doon xool mbedd yi plan moo ko fi dàq boo ñëwoon sax ban ko sa kër ne ko nangam mu ne la boo ko defee woon nii ak nii jant bu xëyee di dugg wala jant bu bu sewut nangam loolu sëriñ bee ci man ku ne te am na ci loo xam ne suñu borom may na la nga am ci loo diisoog moom ci ay bëgg-bëggam ñu bëggoon ci dëkk bi rawatina loolu loo na ci mën a baaxee te man ci gën a jariñu ngir bàyyi xel sëriñ Saliou fi mu woon ak ni mu bëggee woon Touba tey mel ni incha allah bisimilah. jërëjëf sëñ Afia bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa bi moom sëñ Afia comme ni nga ko jotale alhamdulilah mel ni bu tëddee suñu jëwriñ sëñ Abibu Jóob mhm. siyaar ko ndax mooy kilifa jataay bi mhm. dana mën a yóbbaale kilifa yi fi teew yëpp ak ñiy yëglu te egg seeguñu mhm. xanaa di sant rek di tey gërëm sëriñ Habib ci waxtaan bu am solo wi nga xamante ni indil nañu ko ci sëriñ Saliou mhm. te moom kenn ku nekk xam na ne lépp lu mu wax ci sëriñ Saliou rek lu wér la ndax mos a tàggoo ak moom ci ndawam ba ci magam mhm. boole ko nag am xam-xam boole ko tamit bu baax meññi ko muy Cheikh Mahamadou Lamine Diop daga nag xam na képp ku xam sëriñ Touba rek xam nga ko ak moom mm. kon lim ñuy wax dégg nañ ko njariñ la loo xamante ne danañ ko jariñoo waaye tamit làmmiñam bi mu jógee tamit muy doon loo xam dañ koy barkeeloo mm-hmm. sëriñ Cheikh Diouf tamit ñu koy sant bu baax ci jataay bu am solo bi ak waxtaan bu am solo bi mu leeral ci sëriñ bi ci sëriñ bi ci boppam fi mu jaar ak ni mu jàngee ak ni mu jàngalee ak ni mu yare muy waxtaan boo xam ne tamit am na solo lool loo xam ne mën mënees na koy jariñu bu baax a baax jërëjëf sëñ Xaafiya xam naa ne li nga wax sëriñ Saliou moom dañ ciy barkeelu rek comme niñ ko doon defee at mu bëgg gi mu bëgg Tuubaa moom daa bokk ci moom ndax ndax day sëriñ bi te sëriñ bi Tuubaa rek la bëggoon mm-hmm. yitte jëm ci amoon ak lim ko jaraloon tamit loolu du lu kenn umpale mm-hmm. danañ ci barkeelu buñ ci barkeeloo tamit Tuubaa ndegam ci biir réew mi la ñu wax tamit yéen a ji mu amoon ci réew mi ak ni mu bëggee woon réew mi ak réew mi tolluwaay yi mu toll mm-hmm. Mm-hmm. bu ñu noppee tamit barkeelu ci xew-xew bi nga xam ne daa xew ci jamono muy ndaw ñëpp jógandoo mel ni ñi topp géej gi ñi topp mbedd yi fas yéene génn réew mi di wuti njariñ dëgg la ñu xool tamit sëriñ Saliou diggam ak ndaw ñi ndegam moom sëriñ bi rek lañ bëgg tamit ñu fàttali leen sëriñ bi ni mu doon doxee yooyu tamit ñu bàyyi ko xel mm-hmm. diggam ak Touba moom yitte ji mu ci am ba mu dooree sëñ Touba jamono ji nekk dama koy faral di nettali dama ne leen sëriñ bi njëkk muy doon sëñ Touba mën nañ ne mës a génn dara mës a génn sëriñ bi waaye nag ndegam daa amoon ay kilifa ci liggéey boppam la nekkoon liggéey boppam mooy lan mooy samp ay daara alxuraan ngir màggale ko waaye juróom wu tedd wa mi nga xamante ne daa yéene def métier jàngale te am ci gàllankoor moom mu fas yéene loolu nag mu def ko muy ndigalam di am di mbiram fas yéene tamit tàggat doomi jullit ñi ak doomi taalibe yi ñu ko jox ànd ak ñoom dugg àll bi. Hmm. di toj ay njëndi di fa liggéeyal yàlla waaye la mu fay liggéeyal yàlla lépp tamit da koy delloowaat ci ay kilifaam yi fi nekkoon ku fi mën a nekk sëñ mas a nekk sëñ Touba lu mas a liggéey jox na la ko. sëñ Abibou Diop mii nett la nañu fi daaw lu am solo nee na Alaaji Maysa Sekk ca Thiès moo ko nettali mhm. ca jamono yu yàgg yoo xamante ne ni kenn mënta bay fukki bërigo nee na booba sëriñ bi peese na junniy bërigo def ko addiyey Cheikh sëriñ Fallilou Mbacké def ko ci liggéey sëñ Touba bi kon loolu kenn ku ne xam ne ne moom fi loolu la ma sa dekk waaye nag ba mu ñëwee ba doon sëñ Touba nag li ñoroon sëñ bi nag li gi sëñ Saliou def nag moom kenn ku nekk mën a cee teg bët damay wax ne daaray alxuraan yi niñ toll ci Touba njëkk sëriñ bi di doon sëñ Touba jumaa yi ni mu fi tolloon njëkk sëñ bi di doon sëñ Touba njàngum xasida ni mu fi melan njëkk sëñ bi di doon sëñ Touba ak sëñ bi dooree sëñ ba di dem àjjana na yooyee ñett yooyee mel ci dëkk bi <laughs> kenn ku ne xam na bay na ci waar woo xamante ne nii kenn xamul nu mu <laughs> ndax sëñ bi njëkk muy nekk sëñ Touba jumaa yi ci dëkk bi dañ ko doon lim dañ naan jumaay Touba ne jumaay Daaru Xuddoos ne jumaay Gédé ne yi euh, daara xalimul xabir boo ko limee daanaka du mat fukki jumaa mhm. mu ngoog nag kon mhm. sëñ bi mi ngi noonu <laughs> mu ngoog waaye nag sëñ moom bi mu ñëwee yor liggéey boobu fas yéene koo yeesal ba mu fiy jógee lu ëpp ñaar téeméeri jumaa am na ki dëkk bi yu julli ak juma mhm. kon kooku kenn ku ne xam na ne moom xam na ab cëram te liggéey na ci liggéey boo xam ne ñëpp teg nañ ci bët Mm-hmm. jàngam xasida dañ daa wax waa ka sëñ Abdou naan waa ka sëñ Massamba waa kër waa waa waa Daaru Muxti nga xam ne ñooy jàngkat yi siiw yi nga xamante ne nii ñoom lañ daa ñoom lañ daa wax waaye sëñ bi bi mu ñëwee ba soññi murid yi ci jàngam xasida tasaare daayira yi nga xamante ne nii ngir sawarloo taalibe yi boo ñëwee ne sëñ bi turu daayira lu mu sonn sonn lu mu mën a def day daal di jóg jëlu kayit jël big bi ci loxo boppam bindal la turu daayira ngir soññ soññi taalibe yi ci ci loolu léegi xoolal nag sëriñ bi moom bi mu fi bàyyi ko li wégi suñu borom njàngum xasida nu mu mel ci réew mi <laughs> ndax waa Sacré Cœur waa Daaru Musi léegi nee na dax dax a jàng déedéet waa Kër Sëñ sàmm ndax dañoo dax a jàng waa Yoof déedéet foo dem ci réew mi Hmm. nit jëkkatee xasida rek da jàpp na ci kuréel yi ñu njëkkee la woon wallaahi loolu nag loola waaye a wax loolu ab liggéeyam wallaahi ndeysaan wallaahi alxuraan mhm. kenn ku nekk xam ne ne sëñ bi moo dalan moo dalan moo moo dalan léppam sëñ bi moom daraam génnul alxuraan mhm. waaye ci ne mu tedd ba mhm. waaye nag sëriñ Saliou li def ci njàngam alxuraan nga xamante ne dañ ne ba nga fi bàyyi koo bàyyi nga fi lu mat ñaar fukki daara ak juróom ndax xel koom rek fukki daara juróom la nga boole daara yi ci sowu ba boole daara yi ci penk bi boole daara yi ci biir Touba ñuy jàng alxuraan yemuñ ci jàng alxuraan nga di leen dundal di leen takkali soxna. Mhm. di leen ngénteel. Mhm. di leen faj waaye loolu nag ndax kenn mas na ko def. amul ci àdduna ci àdduna. wallaahi ak maanaam soññ gi mu soññ nit ñi ci bëgg alxuraan. woote bi mu woote tool bi yëpp na indi leen gone yi. loolu nag gis ngeen résultat bi mu jur tey ci Touba. ak ci réew mi ba njàngum alxuraan ni ko ak ñëpp fabuwaate fonk ko te loolu tamit liggéey na ci liggéey bu am solo waaye nag dëkkub sëñ bi yi nga xamante ne mooy Touba damay faral di wax na sëñ bi bi muy ñëw Touba dafa amoon lu ko tënk tënk bi gën a mag mooy dafa am ay quartier cosaan yu fi nekkoon yoo xamante ni ñooy dëkk bi da nga naan Daaru Xuddus Daaru Minnan ne Guédé euh, ne Soura wax ay quartier quartier yoo xamante ni quartier yoo xam ne dafa am fu mu tàmbalee woon rek waaye amul fu mu yem maanaam daar Xuddoos day màgg rek lu fa sës rek mu yokk ci muy Daaru Xuddoos Daaru mm-hmm. Minam tamit day màgg rek mm-hmm. lu ko sës rek yokk ci di Daaru Minam mm-hmm. Guédé tamit day màgg lu ko sës rek yokk ci di Guédé waaye sëñ bi mu ñëwee lim njëkk a def mooy quartier yooyu yëpp nag fañ fa mu leen fekk da leen faa yemale xam moom quartier benn màggatu sos ay quartier yu yees sosé la ko ci ñooñu ay tur yoo xamante ne nii li sëñ Tuubaa defoon nga xamante ne nii bi mu ñëwee tur yu baax moo ñu ko tànnal am na tur yoo xamante ne nii kenn daaw ko dégg njëkk moom moo ko tasaare ci réew mi muy turi lislaam li sëñ Tuubaa doon def dëkk yu baax kenn ku ne sa dëkk da nga ko naan tuddee daaru nangam boo santee Jóob ne daaru Jóob wala nga ne kër nangam Jóob wala kër nga ne Njaay mm-hmm. waaye nag ay dëkk yu baax nag Touba Daarul Mannaan Daarul Minam maanaam loolu sëñ bee indi ci ci ci ci ci ci ci réew mi mhm. sëñ bi nag quartier yooyu yëpp nag mu yaasal ko ba ci bii ñu toll na bii ñu nekk ci la bokk mu tuddee ko jannatu naxim parce mhm. tur yu rafet yooyu leneen lim solo sim indi nga xamante ne bu ko sëñ bi defutoon tey jii jafe bu mag dana am mooy quartier yooyu yëpp nag ña fa nekkoon yilif ko xalif général mu Mouride moom yoonam newu ci woon ndax quartier bu nekk amoon na borom waaye nag sëñ bi quartier yu bees yi mu def nag moom ku fi nekkal sëñ Touba rek yaa yilif quartier yooyu nga sañ fay def sañ fay dindi sañ fay yokk sañ fay loolu nag tey bu amutoon tey ci dëkk bi kon tey fu waa dëkk bi jëm ndeysaan ndeysaan ñor gém ko ñoroon nag ñor gém ko ñoroon nga xam ne loo xamante ne nii dama koy nettali ndax toujours nettali day am seere mhm. bi ñuy dafa am ay xàll yu rëy booba autoroute bi nekk fi nga xam sëñ bi ni mu bàyyee xel jamono booba autoroute bi amagul woon ay suuf yoo xamante ne ay nit dañ koo dëkke mu nañ ko nañ ko nangu ndax dañ faa war a def rond-point yu mag ndax ëllëg si biir xàll wiy jógee ndakaaru foofa lay jaar si mm-hmm, mm-hmm. am ñaari kilifa yu ko moom kenn ki sëñ Mbàkke soxna loola kenn ki du ma tudd turam ndax ñoom ñaar nañ nañ doxale ca yónnent ba daa bokkul sëñ bi demee boo demee nga ne sëñ Mbàkke soxna loo suufam soosu léegi dama ko dama ko bëgg a wàññi ndax dafa am yoo xamante ne ni ay ay ay yoon yu mag yu ñëw ëllëg la mm-hmm, fekk boobu sëñ Mbàkke soxna loo ku ñuy wax sëñ Moor ñaan la dénk quartier boobu ak foofu mooy bàyyi Abdou Fatah ñaan mhm. Abdou Fatah ñaan ñu bari xam nañ ko ci Ndakaaroon mhm. ak ci sëñ Mbàkke mhm. ma dem ki sëñ Moor ñaan wax ko ko ne ko sëñ bi ne moo ma waxan ne ma ndax booba sëñ Mbàkke dama waxan bu la sëñ bi yónneetee te luy lu jàmp mën ngaa yem ci Moor ñaan ma ñëw ma ñëw wax ko ko waaye sëñ Moor ñaan nag ne ma loolu moom demee noo xamante ne nii faaw damay dem ba ki sëñ Mbàkke ma leeral ko ko bi mu demee mu ñëw mu ne ma dem naa ki sëñ Mbàkke de sëñ Mbàkke li mu wax mooy sony bu Siise bu ñëwatee ne la sëñ bi nee na bu lu ma ko laaj la mu la wax rek def ko am geneen kilifa gu ma yónni ne ma boo demee ne ko kat suufam soosee dama faa soxla nangam kilifa gën na ma tappale yi ngeen di def sëñ bi bu leen yónnee ngeen di tappale daan bëgg a jël sëñ bi nii daana waa baax na xëy si suba si jot ak mu xëy si sëñ bi waaye keroog maanaam bi mu tàmbalee maanaam gis na sëñ bi melokaan melo woo xam ne xam naa ba mu xamee sëñ bi ba tey moom mës a sëñ bi ci melokaan woowu ilaha illallah ne ko sama liggéey bi ngeen di gàllankoor bu ngeen bëggee gàllankoor man du ma ko nangu ndax fii kenn amu fi dara keroog sëñ bi baat bu mu daawul utilise baat bu mu daawul jëfandikoo sama baay sama waajur maanaam maanaam fii sëñ bee moom lépp dal ci kawam dal yoo xamante ne nii maanaam mu sëñ bi ba mu génnee tiitaa tiitaange tiit na tiitaange joo xamante ne nii lépp nag loolu ngir dëkk bi ñor gum ko ñor dëkk bi ñor gum ko ñor waaye nag léegi nag xoolal nag kon ñu war a sant yàlla bu baax dalal xel ndax Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xamante ne nii mooy Cheikh sëñ Touba ca tànk yooyu rek la jaar ndax moom tamit kenn ku ne gis na ne yitte yi dëkk bi ni mu koy yitteele mébéti sëñ Saliou yooyu tamit nam koy soññee ak nam cey nam cey nam cey nam cey dage lu nekk kon nag waa réew mi nga xamante ne ñun ñoo dëkk tuubaa muy taalibe yi muy ndaw ñi war nañoo bàyyi xel loolu nga xamante ne nii mooy sëñ Mountakha bëgg ci dëkk bi te du dara lu dul yar nit ñi soññi leen ci gën a bëgg dëkk bi soññi leen tamit ñu fonk dëkk bi ak soññi leen tamit li fi sëriñ Saliou naaroon muy ay projet de ay mbedd ñu bañ koo sakk bañ koo def dara sëñ Mountakha ki loolu rek la nekk yàlla nañ ko ñu koy koy ñaanal suñu borom may ko ndam waaye taalibe bu nekk xam na tamit loolu bu egsee ci yow mu xam ne suñu njariñal bopp la loo xamante ne dañ war a góorgóorlu kon sëñ bi moom diggam ak dëkk bi loolu la woon waaye diggam ak réew mi nag ndax réew mi fi mu nekk nii fii mu toll fa ma saa toll muy ñu jub ay élection coow li bëri lool sëñ bi li muy njëkk a yittewoo mooy dëkkee sakk sarax génne alalam di sàkk sarax ngir jàmm am ci réew mi dëkkay ñaan sëñ Abibou Diop mii xam na ki dara santaane ñuy jàng ay kaamil ci ay pénc di teral nit ñi ngir ñaan suñu borom def ci réew mi jàmm kon mbokk képp koo xamante ne nii taalibe murit nga képp koo xamante ni ki njaboot ak sëñ Saaliwu nga yu mel nii bu xewee war ngay sàkk sarax war ngay ñaan di ñaanlu ngir suñu borom def mébitum sëñ Saaliwu moomu ndegam nag lottu nga xëy na ci ñaan ak ñaan la nga yar sa bopp yar sa jëmm ba lépp loo xamante ne ni day indi ay coow ak i rëng-rëng yow yoo kenn bañ la caa dégg kenn bañ la caa séen ngir loolu nga màggale ko fàttali ko ko suñ jàmbaar gi tedd ji ñuy fàttali muy muy muy muy muy sëñ Saliou Mbacke ndax sëñ Saliou Mbacke kat moom kenn mës xam soxlaam ndax Abdoulaye Wade mi nga xamante ne ni sëñ Saliou ko defal lépp keroog ba mu faloo ba ñëw ci moom ne sëñ bi rek damay ñëw di la sant si te tey bëgg xam sa soxla ndax li may doxale réew mi nga wax man nan nga jàpp ne noonu moo ci gëm noonu moo ci gën ngir réew mi aw yoon sëñ bi ne ko man day benn soxla rek benn benn soxla rek laa am mooy Sénégal gi nekk réewum lay lay loolu ñu dindi ko ci constitution bi mu bañ a amati. Hmm. kon kooku soxlaam soxla si ñëpp la soxla si jullit ñëpp la. Hmm. président Ablaye Wade tamit daf ci yéene dem Ndakaaru wax ko xam nga fekk Abdoulaye Wade moom dafa da kii la woon nu mu tuddati libéral la woon lu mu xalaat rek da koy wax pression yi nag jógee fu nekk ci àdduna bi nga xam nga Sénégal ni mu toll ci àdduna bi xupp yeeg tubaab yeeg coow yëpp ba mu dellu si ci sëñ bi xamal ko sëñ bi ne ko yéene woon naa ko day waaye nag nangam ak nangam ak nangam ndax booba xam naa ne àdduna bi ni mu bindoo xamal ko ne tamit loolu xam nga suñu réew yi loolu mënu fee am sëñ bi ne ko ah sàllaaw Mauritanie day ñun ak ñoom lañ France ak ñu bokkat yilif dafa war amu fa sëñ bi xam na ne loolu mën naa nekk waaye rek sëñ bi li mu teg mooy kon de bu loolu jàllee ndax nee na suñ sëñ bi daf ne moom suñ borom lépp lu war a am dina ko amal doomu aadama bi sëñ bi da ko daan wax day ñaan suñu borom te di ko sant ci diggante boobu rek la war di baagante waaye wurta xalab ak sabablu lépp mbir mu ma gis rek ñoom ñu baax ñoo ñu bëgg ko rek mu am gàllankoor rek xamal ne bañ ko bëggee rek suñu borom dana ko def waaye nag ñoom ñaare dañoo xam-xam dañoo xam sañ-sañu suñu borom ba duñ sàññaa fa ci yenn yi kon ñu rafet ci njort na mën naa am ëllëg mu ñëw waaye sëñ bi lam teg mooy ginnaaw loolu jàlle da bëgg naa ñu xam ne diggante Mbàkke ak Bakel da ci réew mi lañu bokk ñu fàttaliku leen loolu lan ma ki njëriñam ak Bakel ci réew mi lañ bokk bëgg naa ñu fàttaliku leen loolu mooy àll bi nga xamante ne nii jàppoon nañ na jàppoon nañ na Sénégal Ndakaar ak ak Ndar rek la yam waaye sëñ moom gis nga xam gisee xam naa ne moo tax président Abdoulaye tamit loolu nañ ko ci sant ndax gis nañu tamit lim def fuutaak ak lim def ci àll yooyu yëpp def na fi ay ay procès yu mag a mag xam naa wax jóge tamit doon nekk dara booba tamit ba léegi loolu mu ngi dox ci réew mi kon xam nañ ne sëñ bi moom réew mi rek ko ñoroon kon tamit ndegam ñun ñoo bokk réew mi te ñu ëpp ci réew mi ndaw ñi dañoo jublu sëñ Saliou bëgg ko kon war nañ leen a fàttaliku nag moom yenn responsabilité la bañ ci réew mi sëñ Saliou bëgg na réew mi bëgg koo xamante ne nii li ma wax léegi sàkk sarax ñaan ak lépp loo xamante ni mas naa yëngu ci réew mi poosam moo ciy jiitu gis ngi fàttali yéen a ngi fàttaliku lakk gawañ ko Sonacos yéen a ngi fàttaliku xëy yeneen xew-xew yeneen xew-xew lépp rek poosam moo ci jiitu kon boog ñun ñi nga xam ne ay njabootam lañ ñu bàyyi xel loolu di fexe jàmm di am ci réew mi fexe fonk suñuy kilifa yi diine yi ñu am ndax sëñ bi kat kenn ku ne gis na résultat bi ko yàlla fayee li ko ko gërëm may dey jaamu yàlla bokk na ci liggéey baax na ci waaye fonk ay kilifaam day li mu ko may bari na lool. kon boog ndaw ñi nga xam ne dañuy xeeñtu sëñ Saliou ñoom tamit ñu fonk seeni kilifa xam na seeni kilifa muy Cheikh Mahmoudou Mountakha jàmm rek la ñuy yéene lu baax rek la yéene lu baax rek la ñu bëgg lépp lu muy def ci Touba ak di ko def ci réew mi ngir suñu njëriñal tey la ak suñu njëriñal ëllëg loolu daal xam naa ne cig cig cig cig cig cig cig euh, njaalbeen bu ko defee sëñ affaire ñu barkeeloo loolu ba ñuy dellu si bu soobee yàlla. jërëjëf euh, ndeysaan sëriñ Souhaïbou man damaa doyul sax nit ñi ndax. waxtu ma jaaxal waaye ni waroon naa nekk ñaari waxtu wala ñett ndax Serigne Saliou li ko sëñ bi bu waxee ci njëlbeen gi mooy doon na ko xam ne bis bu ne mën nañu wax ci moom mooy kon bor boo xam ne mënuñu ko fay dañ naan ca loola Serigne Bassirou ñu ngi koy ziyaare bu baax moom Serigne Mbacke Mohamed moom itam yegsi na léegi Ahibahul Khadim ñu ngi koy tatagal di ko dalal di ko ñaanal jàmm Serigne Bassirou Fall Eh, di ci bég lool nag waaye di fàttaliit it mbokk yi sëñ soy bu muy eh, dama laa fonk ñaari yoon ndax samag dañoo bokkoon kër sëriñ Bassirou Cissé samag yu tedd ja ba muy sos daaraam ja ba mu koy sanc waaye itam sama mag ju baax ci sëñ Abdou Cissé duma ko fàtte mukk moom la sëriñ bi yónni woon bi mu may jël si moom ma jël si njaareem te ba mu may jël sax ñëw tàggu sama daa ñëw jël ma ne ma nañ dem sëñ bi la woo sama dem ba mbuur sama doo door a xam ne sëriñ Saliou laa àndal loolu moom maa ngi koy sant fu ma toll di ko ñaanal muy sëñ Abdou Cissé waaye nag di la santaat bu baax a baax euh, xam naa bu bu wax ji gënoon gudd way yi way yi gën fee yokk ndax kenn ku nekk am na loolu sëñ bi defal ci daara ji ni ko sëñ bi waxee léegi booy boo nekkee ci daara ji loo jëm man ko man la ma naan loo jéem man ko ndax sëñ bi daa jàngale nu ne am na ñoo xam ne bi ñu jógee daara ji lañ daan fooye moom la sëñ bi dimbalee tey moom lañu ñuy yëngu ko liggéey euh, mën naa jox misaal sama ah bopp dama fa daan nekk di def ay weer yoo xam ne dama ko daan def fii de fer di toppandoo ay journaliste yoo xamante ni jamono yi ñu si wala di leen ga gars yi di ma reetaan may def journal moo tax ba ma njëkkee dem def journal ci Touba bi laa ma njëkk a woo ne bi ngay def ma joxe moom sëñ Fall damaa tiit defe ne da nga ma def ba war a daaneel daal di tëjee nag wooy wa xoromu maanaam ndekete sëñ Fallou Sëñ Abdou Khadir mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy seetaan moom itam dafa maa wax ne ma booy def journal damay bëgg way wi li ngay tëjee dama koy bëgg fekk ubbil te tijjil te afal bunti yi njëriñ yëpp biir bitti fekk nattu yi loola ak yooyu kàll da di neex lool mu doy waar lool waaye loo jëm ci sëñ bi rek ci daara ji daal di koy sëñ bi am nay journaliste am na ay caméraman am na lépp loo xamante sëñ Saliou rek daa mel ni su borom da ko sàkkal ku ko man mooy li sëñ Abib doon doon wax lu sëñ bi bëgg rek sëñ bi wutal na ko suñu borom wutal na ko ñoo xam ne mën nañ ko kon ñi ngi santaat bu wax tey gërëm waxtu yi moo xat sëñ Abibu waaye nag euh, ma bàyyi xel ci ne sëñ Abibu Jóob mii am na daara joo xam ne taxawal na ko muy daara Sëriñ Saaliwu ci tubaa Thiawène mooy daara joo xamante ni day mel day delluwaat ci daara Sëriñ Saaliwu mooy daara ñuy jàngale alxuraan dafa jàngalee xam-xam yooyu nag la sëñ bi boole woon ci jenn daara ndax danga daan jàng alxuraan ba noppi dem jàngi téere beneen ci feneen ndax daaw ñu bokk foo koy jànge waaye nag sëriñ bi def na moom jenn daara ji sëñ daara yaa ngi fi ñiy jàngale xam-xam ngi fi te doo génn daara ji mën a jàng alxuraan jàng xam-xam kon loolu daara jooju ni nga koy bàyyiloo xel ñëpp moom itam ñu mel ni moom mel ni suñu laaj loo ñoom tubaarkàlla nga xam ne dañoo taxawal ay daara waaye moom nag daaraam ji moom dafay nekk daara ju mat a bàyyi xel ndax day dellusiwaat ci sëriñ Saliou dellusiwaat ci sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana numéro téléphone am mooy 77 517 45 64 kon numéro bi incha allah dinañ ko wane noonu incha allah ngeen gis ko ndax day sunu jëwrin lépp loo xam ne taxaw na ci ñun dongo yi faw ñu siwalal ko ko incha allahu taala euh, damay daal di joxaat nag bala ñoo tëj naa ne maa ngi ñaan ñi ma jàkkaar lool xam naa dana gàtt waaye tëj rek lay doon euh, su ko defee nag ñu door a tëj jataay bi sëñ Abibu euh, kaddu yi nga xam ne moom nga ci dolliwaat rek soof ko ci mu nekk loo xam ne tëj lay doon. asalaamaaleykum man la ni wax ji moom tëju na fii ne ndax liñ bëgg mu feeñ ci sëriñ bi feeñ na euh, tuuti la waaye mm, doy na ndax euh, duñ ji doy na boroom xel mm, ba na boroom xel mu ne daa dina xam fi mu ne nii fi nga xam ni fi lañ jëm ndax sëriñ bi moom buñ ci doon waxtaan bi mel na man rek li ma li ma xam ci sëriñ bi mën naa ci wax mën naa ci waxtaan ba suba waxuma la sëriñ Sooy waxuma la sëriñ Sooy Joob mii nga xam ni moo ñu gën a féete ndaw ba noppi Euh, am xel am xam-xam kenn ku nekk ci ñi fi toog mën ngaa wax ci sëriñ bi loo xam ni euh, ba tax na kon liñ ji junj liñ ci jël lu mu tuuti euh, doy na sëkk kon noo ngi sant ñëpp noo ngi sant sëriñ Cheikh Ibrahima dama koy gën a sant ndax li ma koy gën a sant mooy ndigal li ma mujj jot ci sëriñ bi moo ma ko jox ndigal li ma sëriñ bi mujj jox moom mi moo ko jox fekk na sëriñ bi wax na ma ko waxaat ma ko waaye yónni waa sëriñ Cheikh bi ci man mu ñëw fedd ko dama sëriñ bi nee daara ji ak jàkka ji ñu ngi sa loxo nga xam ne daara ji ak jàkka ji la mu mujj a dénk loolu mooy sababu daara ji nga xam ne moom laa samp ba ko liggéey loolu mooy moo moo moo mooy sababu si ndax aw ma aw ma leen lu ma mën a def ludul wala lu ma war a def ludul li nga xam ne moom moom la ma battale no do am noonu la ko waxoon sëriñ mi ngi lay mi ngi lay fàttale lim lim lim la joxoon muy daara ji ak jàkka ji nga xam ne yëpp a gis sa loxo jiite jàkka ji jàngale ci daara ji kon loolu moom mooy suñu ndigal loolu nag moom laa koy sant ndax moom ma ko mujj loolu ndigal laa mujj jot sëñ bi loolu bi mu amee ak bi bi demee gisaatuma fi sëñ bi bi kon loolu kooku moom waxtu moo ko gisee rek damay gis ne damay jàpp gis naa sëriñ Saliou ndax màggee naa ko lu bari njëkkee naa ko fi lu bari waaye sunu borom taw feexal na na ko ba ndigal li ma mujj jot sëriñ moom ma ko jox kon dañ koy sant bu baax di ko ñaanal sunu borom may ko fa waaye suñu suñu wàjjiri ni meloon moom moom moom kii la loolu kon moom loolu mbokk démb la tey soog a ñëw jërëjëf jërëjëfati jërëjëf sëñ Cheikh eh, kaddu yi tënk yi nag waxtu wi daa mel ni rek loo ci wala dolli rek waaw ah, jërëjëf sëñ Afe man kay dama doon jéemantu rek ñoom samay kilifa dañ fay nekk moom te lépp ñoom ñoo ko xam ñoo koy wax waaw ah, dama leen sant ci boole gi ñu ci boole rek ngir ngir teete ñu ak wan ñu yoon rek ak yaatal ñu waaw li jeexale moom mooy sëriñ bi moom daa def lim war a def lépp ba wàcc la alxuraan waxoon ne yàlla mi ngi digli ak maandu te ak maandu booy lenn lu ne nga jox ko àqam kenn ku ne nga jox ko àqam loolu suñu sony bu mu duggee léegi ci dëkk bi réew mi adduna bi kenn ku ne ni nga jox woon àqam boo duggee ci biir nit ñi itam benn benn ci réew mi mbooloo yi tarixa yi kenn ku ne mu jox la sa àq ba nga defe na yow dong la féetal bu ñëwee ci dong yi tam li bari bari kenn xamul nuñ toll kenn ku ne sëriñ Saliou jox la sa àq ba da ngay da ngay ku bis ak guddi yoo xam ne da ngay xam ne yow dong yaa ko am ci moom mat googu nag waxuma la àq ji waaye kenn ku ne mu jox la sa àq ci wàllu jàngal la ba loo xamul cim jàng dangay xam ne dogalu suñ borom la waaye desalu la ca dara lu ne daj na ko ci sunum jàng sab yar daj na ci lu ne nga xam ne mbooloo mi ni mu baree demee mënoon naa programme yi ñëpp waaye ginnaaw bi ñu programme ba ñëpp li ci gën a yëm mooy day day day teqi par benn benn it kenn ku ne mu da jagleel sa orientation bopp di la jagleel sa yitte jum la jox ak bëggal gum la bëggal foo foo àgg nag lam ci jublu woon mooy kenn ku ne mat li nga doon fi mu la jëme woon nga xamal ko sa bopp ba ëllëg doone man sëñ bi nangam ci nangam laa ko jëlee waaye da ngay xam ne sa jagleelu bopp am nga sëñ bi goo xam ne nii loolu nag buñ ko dajalee mooy doon doole ji nga xam ne moom la dong yi mën a lënkalikoo ak ñi ànd ak moom mën a feeñal liggéeyam boobu loolu daal ñu leen ci bàyyiloo xel bu baax a baax a baax noonu la matala woon diggante ak boroomam sëriñ bi daa mat matal loo diggante boromam ci wéetal yàlla man koo jaamu ak it kum gis yéene loola loola nga xam ne moom du doon nit koo xam ne day jëriñ boppam rek waaye gis nga sëñ bi kum gis noo mën a sant ko mën a doon yéene na la xam-xam bi mu am nga am ko yéene la defaroo gi mu defaroo nga defar ko ba day mel ni sax moo la jur joxoon googu jox àq yëpp nag waa kër Sëñ Tuubaa yi seexi Sëñ Tuubaa yi taalibi murid yi daayira yi waa waa waa ñi féete ci xasida yi ñi féete ci alxuraan ñi féete ci xam-xam ñi féete ci liggéey ak liggéey ni mu ci doon tàggate doomu aadama ni mu ko ci doon dimbalee nga xam ne njëriñ bi ko jëriñ ci boppam rek ko léegi loolu rek moom kenn mënu ko cee eh, nattale kon ñu ngi ñaan yàlla fayal ko bu baax a baax dañu ko fayal fu mu toll te liggéeyam boobee suñu borom gën koo lawal gën a dimbale ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk ci anam guñ ko guñ ci mën a jàppee bañ àggale ko foofu ba njort asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Cheikh béggaat nañ lool Diouf imam la ñaan suñu borom defal la jàmm ni nga waxee ci jëlbeen gi rek ni nga ko waxee mooy ahmal eh, li dunyaaka kaannaka taxiisu abada wa ahmal li axiratika kaannaka tamutu xada wala liggéeyal adduna aha eh, sa adduna wala liggéeyal alaxira nga xam day mel na ngay dund faaw waaye mel ni ëllëg wala léegi rek nga fi jógee loolu lépp njëlbeen gi indi na ko ci sëriñ Saalix mu mel ni xam naa sëriñ bu am na kaddu yoo xam ne moom ngay tëj tey am solo lool su ko defee ñu ñëwaat ci rek ba noppi door a ñëw ci sëriñ Cheikh kon mu mu ñaanal ñu incha allahu taala waa bisimilah. waaw jërëjëf Cheikh Afia ñu ngi lay sant bu baax yow tamit. Mhm. xam nañ la bu yàggee yàgg yàgg ci njaareem. ndeysaan ndeysaan. njëkk sa ñëw sëriñ bi. wallahi wallahi ba sëriñ bi daan ganasi cofeel goo amoon ci sëriñ bi sëriñ bi am cofeel googu ci yow. wallahi wallahi ba tax mu sàkku am na ñoo xamante ne ni seen i waajur jël jox leen sëriñ bi waaye yow sëriñ bi ci boppam moo sàkku sag ñëw ci moom ndax sa bëgg xasida sa yàgg jàng xasida yu neex di ci bégal di ci bégal sëriñ bi booba léegi nag sa dara ngeen sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di eh, sëñ Balla Diakhara ñu koy yóbbante am nuyoo ci sëriñ Cheikh moom sëñ Saliou mm-hmm, mm-hmm. nga xamante ne nii mooy jataayub ka mooy kilifa jataayub ka sëñ Saliou mm-hmm, te jamono jii dafa nekk jamono joo xamante ne nii am kilifa neex na am kilifa naqari na ndax jamono gi daa ubbeeku léegi ku ne sañ wax ku ne sañ a bind ku ne sañ coow waaye am kilifa goo xamante ni lu wax ji bëri bëri bëri bëri bëri boo tëddee di nelaw lu li bëri bëri bëri boo tuddee da nelaw ndax moom li ko mën a waxal rek mooy jaamu yàlla ak liggéey jaamu yàlla ki jëmi boppam toggoo ci coono yi métti Mm-hmm. waaye liggéey alalam tamit lam cay am mu delluwaat ko ci suñu borom delluwaat ko ci daaray alquran mm-hmm. delluwaat ko ci ay jàkka mm-hmm. delluwaat ko ci ay juma delluwaat ko tamit ci dundal ay jàkka ay juma kon loolu ku ko am ci jamono ji doy na doy na sant yàlla bokk na ci cër yoo xamante ne suñu borom moo koy maye tañ may nañu ko ñun waa kër sëñ Saliou may ko tamit may ñu ko tamit ci njaboot ak sëñ Saliou yëpp ñu gën a mottali ay mébétam amiin tey soññi taalibe yëpp ñu gën a laxasaayu ndax sëñ Cheikh moom fam laxasaayoo kenn xamuloon kañ la wallaahi loo ne nii maanaam ceg ndawam ba naga ni mhm. lu a liggéey jox na ko waajuram wu teddoo mhm. te mës sa wàcc ndigalam mhm. fu mu mas a yendu moo ko fa yendal fu mu mas a fanaan moo ko fanaanal te ba naga ni si la gën a takk laxasaayam kon taalibe yëpp kon nañoo xam loolu gën a fa waat te jàppale ko ci liggéey boobu alhamdulilah kon boog ñu ngi sant bu baax a baax sëñ Moustapha Diop tamit mi ngi sant ñu koy sant bu baax ndax bis bi da koo fonk lool ndax sëñ Saliou am na lu mu def ci moom lu bari sëñ Saliou tamit am na cofeel gu ma aman ci moom loo xamante ni ñun ñi ne woon ak sëñ Saliou xam nañu ko am na rek tamit yu yàgg yoo xamante ni sëñ Saliou seq na ko ak ay maamam waaye yooyu yëpp rek moom téye na ko te jàpp na ko ndax bis bi da koo ñor bu desee ay weer day soññi ñëpp loolu du guddi du bëccëgal ngir ngir ngir ngir ngir di leen fàttali bis bi kon wëllëre bi yëpp yi nga xamante ni jàpp nañ ci tamit moom nee na nañ ko santal alaaji sëñ Moustapha Seck doomi alaaji Moustapha Seck mhm. ndax nee na bis bi da mhm. koo bokk ak moom jàppale ko ci jàppale ko wér a wér a wér mhm. kon boog daal ñi ngi wax na jërëjëf comme li ñu waxaan léegi rek ndaw ñi daal nañ xam ne sëñ Saliou moom lim doon def ci ndaw ñi suñ borom fay na ko. ndax ku gis ñi nga xamante ne nii noonu la ndaw ñi jubloo. ñi nga xam ne xaman nañ ko xamuñu ko. ak barabam bii nga xamante ne nii fa la nañ koy def guddeeg bëccëg. ndeysaan ndeysaan kon suñu borom la wax ne du ma nax kenn. wallaahi ku ne xam na ne borom moom suñu borom moom naxu ko. wallaahi kon boog nag waaye nag lam daa wax ndaw ñi. nga xamante ne sëñ bu Jóob yi moom a gën a xam. daan togg aw ñam wu bëri. neex lool lépp nekk ci. Uhuh. mu noppi. onze heures ci bëccëg waaye sëñ Saar da koy teg ne ci ay taabal gone di xool ñam bi ndeysaan mu toog ne ci ay lawraatam ne ci alxuraanam ba ginnaaw tàkkusaan ba timis hmm. mu door a santaane ngi jox leen ñam bi boobu lan la ko jublu ñu ba ngay yàkkamti seen àdduna ndeysaan ndaw la dañ ko tàmbaloon di jàngal hmm. ba ngay yàkkamti macha kon boog ndaw ñi nañ xam ne suñ suñ Saaliw daa wax ne hmm. jamono du léegi la naqari naqare woon bu yàgg mhm. nee na sëñ Moustapha Saliou doomam ca njaareem mhm. am na fa tiisi boo xamante ne dafa demoon ci bitigum naar jënd ko fa mhm. ba ke déwén sa mu bëggaat tiisi ba nee na mu ne dem ca naar ba yal di ñaan naan ay waay yal naa fa fekk tiisi ba nee na naar ba ne koy meetar ba nga ca xotti ban daaw tiisi baa nga ne boobaag léegi kenn laalaatu ci dara eh, kon xam nga ne booba kon jabara neexul kon boog bu ñu demee ba tey nii nii nii nii xéewal yi ni mu bëree ñu naan ñu ñu naan jamono daa naqari hmm. booba dañ dañuy font rek sëñ Sall ji booba moo ma nett li ci làmmiñu boppam nee na dem na Ndakaaru hmm. am fa ay weer yaakaar naa booba xam naa ñoom sanga bi bu jóob ko taxara na booba daaree ca sowu ba la hmm. maanaam ngir toppatoo fa ab dund waaye nee na am na fa ab diir ay saako yu sumul la fa jële maa la wax de ay saako yu sumul wallaahi nee na bi mu ñëwee bi mu ñëwee ñu joxe ñu lekk sumul ba mhm. xotti tiis yeñ saako yooyu ñu mu def ko ay mbubb ñu dongee sol ko fukki mbubb ak ñaar mi ngi noonu keroog ba ma koy ba may nettali loolu booba dañ koo ñamal fukki junni mbubb ak ñaar macha allah indil ko ko jóoral ko ci kanam wallahi xelam dem ci loolu ma ko nettali wallahi kon bokk kenn ku ne xam na suñ borom moom kenn kenn du yàkkamti ñoo ngi noo ngi nag ñoo ngi nag ni ñu melan ñun tamit bu ñu leen bëggee bëgg roy ci ñoom dañoo war a jaar tamit ci seen yooyu ci seen seen melo yooyu ak seen jàngale yooyu di góor góorgóorlu nag macha allah te bëggee yàkkamti asalaamaaleykum sëñ Habib Diop tamit daaraam ji moom kon nag ñu ngi ciy songi ñun suñ bopp di ngi songi taalibe yi yëpp ndeysaan ndeysaan ndax kan mooy def daara mhm. ñu ne sëñ Habib Diop moom sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana wallaahi loolu rek loolu rek doy na taalibe bu nekk sonn ci waaye sëñ Habib Diop ak ni mu demee ak sëñ Saliou Mbacke. Mhm. sëñ mhm. Saliou Mbacke mi yóbbante bi ma mujjee yóbbante ci moom moo ko nettali boppam léegi. Mhm. ñaar yooyu la ma wax. boo demee ne ko maa ngi koy ja ak daara ja kon boo kon moom maa ngi ciy dénkaanam boobu. ba tey kon boo ñun ñëpp nañ ci nañ ci nañ ñaan nañ ci jàpp ba ni mu ko bëggee suñu borom defal ko ci lu kawe njortam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Souhaïbou yal na yàlla mottali say Eh, wax dëgg yàlla ay yéenam naka jekk daa rafet eh, li nekk ci xelam bu ko yàlla di def moom yaakaar naa kon lu bari dana beesu fii ñu ngi koy santaat di ko mat bu baax ci teewaay bi ndax ñu bari mon nañ la waaye teewaay bi jur na lu bari wax dëgg yàlla kon sëriñ Jili sa moom eh, tubaarkàlla ñu jox ko mu yëkkati ay kàddu itam xam naa na nekk soññee mu gën a gën a xam fu ñuy tegaat suñu tàgg incha allah bismillah si Abdul Xaadir asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa nuyu bokk fi teew yëpp di sant bu baax di am mbégte bu baax ci fekke jataay bii nga xam ne jataayu sëñ Saaliw la yàlla dogal tam bi ma ñëwee dégg waxtaan yi ma am ci loo xam ne mënuma koo ñàkk a ci siñ Saaliw muy ñaari yëf muy jumaa yi suñu sooy wax léegi ak wàllu alxuraan ji nga xam ne itam mi ngi ci woon bu dee ci wàllu jumaa yi yàlla dafa dogal man ma yor jumaa joo xam ne moom moo ko liggéey ba mu àgg mu wax sëñ fàllum sëñ Abdou Khadir jox mu wax ma jox mu ndigal ci ma yor jumaa ji di ko taxawee mu jumaa ji nekk ndaamaatu ci wetu kër ma di keñang euh, jumaa jooju mu ngi ubbi woon 2004 ba léegi nii maa ko yor ci ndigalam laa ko yore woon ba jumaa ji rek la la ma ko jox ma yor ko bu ko defee nag kon day mel ni li mu doon wax ci jumaa yi loolu damay eh, firndeel rek eh, jumaa yi ni nga xamee ne noonu la ko yaatale ci gannaawam ndax bokk na ci la ci gën a am solo sax jumaa ju ne day wax ne nañ fay julli iid itam ndax bu fekkonte ne bii àjjuma rek lañ fay julli dañ fa julli julli iid dëkk bi dana gën a xat waaye lépp la boole woon joxe ndigal ba ñuy def lépp bu dee ci wàllug alxuraan gi itam yàlla dafa dogal mu liggéeyal ci seexul xadim liggéey boo xam ne bii yaakaar naa ne ñi ko ci am bariwul eh, bokk na ci ay jamonoom xam nga daan nañ am benn bis rek boo xam ne day woote ci këram ñu wàcc fa ay kaamil ñetti ak fukk ñett ci benn bis loolu yaakaar naa nekkul lu yomb loo xam ne e, tey ci moom lañ ko gis yaakaar naa moo jëmut mu amaat ci beneen cër boo xam ne bi itam bu rëy la boo xam ne bi yàlla dogal na bi nga xamee ne e, aj màkka dafa jege ma bokkoon ci ñuy dem booba ñëw naa ba tàgg ko ñaanoon ma ba mu demee màkka ci at moomu ci la wàcc waaye ma mu am fa loo xam ne lu yéeme la ndax euh, keroog yi mbàccee ci bis bi ñu ko yëgee dajaloo nañ fa wàccal ko kaamil ba altine ji ñëwee ñu di ko ñaanal ñu dajalwaat wàccal ko ay kaamil moo tax mu am benn marché bu ma ko defal boo xam ne bii maa ngi ciy wax ne euh, alxuraan day indi yàgg na fee bàyyi ko ñu ñaanal ko jàngal ko ko waaye jàngal alxuraan nag fi nga xam ne fi la alxuraan wàcce koo xam ne dafay bàyyi ko yaakaar naa loolu moom ci moom la njëkkee fi alxuraan wàcce ñu jàngale ko fa alxuraan waaw loolu mooy yaakaar naa ci moom la njëkkee euh, marché boobu maa ngi ko tàmbalee woon ci kaw kabun aafilun am xamalun afara afala kallaa waqat afalat shamsu duha bada ka an sulsilat ardun birummatiha lamma ana an naasa naain ashadal fudala bal rujjatil ardu rujjan fi mashaariqiha kasaami xaaribiha salil hujaaja ala xat kuntu bin baynim ayyaamaha walisa fa laysa aalim bi shay'in misla man kon loolu ba tey wax dëgg yàlla mu doon koo xam ne kii daal wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla fayal ngeen ji fay ci daraje Seexul ne waaye doon na koo xam ne ku jamono teeg moom ku ne rek maanaam am na loo jëlee ci moom loo xam ne doy na la àdduna ak àlaaxira waaw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu suñu Moustapha itam di nuyu mbooloom yëpp di li ba baal wax ñëpp leen baal ak wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon mbokk yi santaat nañ bu baax a baax a baax ci teewaay bi niñ koy waxee ci njëlbeen di santaat bu baax itam sama conseil bi mu fekk moom itam di ko xam ne kenn la ci man maa ngi koy ñaanal te di ko ñaan ñaanlul sañ naa ko ndax nit ki bu lay conseillé di la jox ay yére yu rafet nga di ko sol bu bëggee ku la gis xam ne kat. sëriñ bi dimbali na la kooku mun sañoon ñëpp ñaanalal ñu ko euh, bëggul sax ko wax turam waaye nag mii ci jataay bi ñu ngi ñaan suñu borom jàppale ko dolli ko toofeex bu baax ci barkeb sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim santaat bu baax sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Souhaïbou moom sawar naa lool ci tudd ko wax dëgg yàlla sëriñ Souhaïbou moom man wax dëgg yàlla dama ko sant ndax dafa am bis mu jóge ci sëriñ Saliou ñëw ci kër sëriñ Souhaïbou boobu sëriñ bi damaa jox sëriñ Souhaïbou ma fay jàng ci laat jaxate waaye sëñ bi daam bis mu ñëw daan ne laat ana sëñ Afe ku ñuy wax sëñ Afe mu daal may woo ma dikk mu ne ko sëñ Afe ngi nii mu ne ma sëñ bi dem moo ne ma naa ko jàppale ba mu bañeetu mu rànke sëñ bi wax li sëñ sëñ laat sëñ laat jaxate wallahi la kon nag damaa bëggoon a xàmmee ba jàppale ko mu bañeetu mu ci kër gi keroog bi mu waxee loolu bis boobu ci biir néegam laa fanaan sëriñ Abibou Diop tey jii day imam ci lu wér donn na baayam taroy seex saalihu ci dëggal ndigal la mooy jàng ak jàngale ak di liggéey te loolu la ci loolu la sax dàkk moom mi moo ko dolli ndimbal sëriñ bi daana wax ne ndigal ak ndimbal ñoo bokk benn néeg bu ñu fanaan kon ndigal bu xasee ñëw rek ndimbal moo ci topp kon nag jaajëf sëriñ seex sa wax ji doy na koy wut a xam dalil yi leer na sëriñ seex Diouf imam wéyalal sëriñ so mu sëñ Mbay waxam ji rafet tegtal la ay waxam leer na wér na yaay ku dëggal xanaa ma wax jërëjëf thank you wa merci beaucoup sukran jaziran jasakallahu jar ngeen ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin